asalaamaaleykum ñoo lu bëri di leen nuyu waa lu xew TV ci dans la maîtresse d'un homme euh, dama bëggoon nit ñi di bàyyi xel ne lu parents yi def rek ëllëg bis bu feeñee day répercuté ci doom yi di nga gis nit dana am lu muy téye ci ay parents fekk ne erreur yoo def ci sa jeunesse la kon parents yi nañ doon royukaay dañ doon exemple dañ nekk nit ñu yiw di seet yàlla ci li ñuy def te bañ di def ay kuuba ndax allah li alin dafay yéegaat ci kaw kon da leen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ma leen di leeral benn bi nag ci mareem mareem li muy dund moom mooy la naturel waaw le naturel lay dund waaw fexe ba xaritam doon sa déedéet jamais au plus grand jamais waaw un ennemi sera toujours un ennemi te kon Lalla jubluwu ko xaritu Lalla du ko mos jublu kon daa waroon a bàyyi ba lépp normalaat mu bàyyi kooku approché ko waaye moom bu jugee bëgg a approché kooku rek xaritu Lalla bi du mën a sotti waaw leen jàppoo nekk benn di jàppalante di yërmande di dox ci kër yi mooy tax xale yi di mën a dund avec saignement waaw kay jërëjëf. maaleykum waa maîtresse d'un homme marié leen nuyu bu baax a baax may leen nuyu mais man dama bëggoon a participer ci théâtre bi maîtresse dama ci bëggoon a participer wu ndax théâtre bu am solo la dama koy suivre tout le temps dama koy suivre mais euh, ci euh, épisode démb bi laa bëggoon a participer wu mais démb moom seen cas bi dafa critique Jalika moom wax dëgg yàlla man kii naa ko trop mais démb moom dama ko xaw a mere ndax dafa def violence du domicile warul woon a dem kër ñoom joor di ko accouché waat dafa ton ñat bi Jalika moom xaw naa ko mere tuuti mais Marème tamit moom tamit yërëm naa ko wax dëgg yàlla ndax bëgg sa jëkkër trop di sëy nekk ci kër gi ba pare kenn yaatalu la moom dafa metti say njëkk yi kenn bëggu la metti na torop mais na góorgóorlu rek lépp mooy baax li daal laa amoon lu ma ci wax rekk mais théâtre bi moom neex na macha allah mais Dior moom mere naa ko trop Dior moom du toppandoo pour kii lan la Dior moom ah, dara lu ma neex daal moom TV nii naa leen ziar leen baax yéen ñi xam ne topp. Euh, film maîtresse boobu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp mais film bi am na sens lool surtout fi toll nii euh, diggante Bakary yi ak ki ñu wax ne mooy papa yi rakk ak yaay rakk yi li ñu doon nëbbu li ñuy nëbbu rakk yi xam naa euh, léeg dil bi dana feeñ mais sens mooy est-ce que rakk yi moom loolu bu jàllee dana ci am. est que dana est-ce que dana si gagné lu bari est-ce que loolu li muy perte mooy ëpp mooy ciy gagné ndax yaayam am na le amaa na le dana am loo xam ne nii dana ko métti lool moom itam dana am lu ko naqari ndax bu fekkee ki ko veele euh, xamee doo am ko neex pour man daal soxlootoon muy topp affaire yi mu sës nii pour man daal jëru woon. léegi mu fexee defaraat dundam daal di mu dundaal leneen pour man moo moo mooy li nga xam ne ni moo gën a am sens ci moom ci moom beneen bi ci des mooy euh, euh, kii waaye Jalika comme ni mu def euh, joor normal na normal la ndax lan joor bu nga xamee ne mu tëjal xale bi waroon na wax papaay xale bi mu delloo xale bi yaayam expliqué ko carrément ne ko mënuma ko supporté si kër gi ndax daw la yaayam amuloon droit di ko dóor mais jo kii itam Jalika itam mënoon na euh, def na neen waaw mu dem kër jaamur di di xeex foofu loolu mën na ko indi problème te yu mel noonu yëpp xam naa ñoom dañuy yeete mais société bi mooy dundee lu mel noonu nit ki ñaaree ñaare ba xolam feesee rek di tàggu sagoom dem euh, def loo xamante ne bii mën naa am ñu fiy tourné tourné waat ñëw ci yow. ba ay yéeg ay yoon di ci am loo mën a ñàkk lu la nit ki tooñ tooñ rek fexeel nga am maîtrise fexe euh, xam yoon bi nga war a jaar ba régler sa problème te doo ci euh, am yéeg wàcc yenn coono yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk surtout ak sa sant mais moom Jalika ni mu def jom woo ko woon a def ëpp na trop trop trop lii day gën indil problème bi di gën a yokk ci moom lu mu def moom kenn du fajee noonu waa may jéggalu nag lii laa am pour wax ci salaamaaleykum waa panel bi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp di képp ku sa numéro nekk ci groupe bi rek maa ngi lay nuyu di la siyaare di la jox sa wàcc waay di leen bal àq di leen balu ah ma ñëw ci suñu film dimb bi neex na dama jàppoon na loolu moo taxoon pare sama téléphone bi moom mu bëgg a joxe message rek mu bañ ne ma duma dem <laughs> lool la waaye film bi neex na lool lool lool lool lool lool Jalika Jalika faanaana faanaa la lool sax jigéen ful la ki dafa yabaate xamoo ni joor dafa yabaate dafa yabaate lool sax jàpp xale bi nii di ko dóor di ko maltraité rek ah doy na waar waaye biram moom munoo ko wax lu mu gëm da yaakaar ne dangay danga bañ joor te fekk joor dafa sikk yor daa sikk de waaye niñ ko doxale moom faanaa la faanaa la lool lool lool sax jigéen de am fulla la ne ko jigéen fulla maa ngi ñëw jàppale la sax maa ngi ñëw jàppale la ci dóor yi ngay dóor joor <laughs> waa dara maa ngi ñëw jàppale la ah ëpp na ëpp na ëpp na ma ñëw na ci Marème sama xarit sama xarit sama doomu ndey Marème daal yow fi nga ko jàpp noonu la del def te bul boole daraa ki wax wax baaxut defal li ngay def rek te bu boole daraa ki wax waaw ma ñëw na Moustapha ak rakki ah Moustapha moom gën a la jàppale rakki rek ndax rakki fi ne moom soxla na ku ko dimbali soxla na ku ko jàppale jàppale ko bu baax a baax a baax a baax yàlla lay fay dimbali ko rek yaayam na moom instant bi tiit na jaaxle na waaye li mu li li muy mujjee da ko waroon njëkkee dafa waroon a toog ak rakki waxtaan ak moom rakki nit la rek mu toog waxtaan ak moom su ko waxee li am lépp rakk dina comprendre waaw xam ne liy passé passé na rek na xool li ci kanamam ah film bi moom neex na moom kontaan naa lool sax lool lool lool maa ngi leen di siyaare yéen ñëpp jërë ngeen jëf. waaw maa ngi leen di siyaare yéen ah, ma participer rek ci maîtresse homme marié xanaa tey moom jëli kaa laay waxal sama xarit yii Jalika tey li nga def ëpp na dëkk bi dafa am yoon waroon dem ak joor lu ci def sa doom war nga ko mën a régler neneen loolu dem ba këram foofu moom contournant la fi moom mën nga ko lijjanti neneen ci wóorul la sax joor moo ko def waaw wala déet mën ngaa fexe kii sa doom ndànk ba xam ba xam moom moo ko def te moom bu ko defee sax am nga neneen noo ko mënoon a faje lu noonu daal loolu daal laa mënoon ma ci participer. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu maîtresse maa ngi bàyyiwuma kenn di wax ci euh, série démb neex na torop macha allah neex na Jalika moom lu mu def joor baax na ci ndax joor dafa réew et dafa yabaate yow doomu jàmbur soo mënta defar moom bàyyi rekk moo gën ko koy dóor ba ginnaawam di dem mel noonu te yéen ñaari yaay li ngeen sekk doom ji yoonam nekkul ci jalika démb lu mu def baax na torop ci joor kanta marem nag moom bul faale la def ci ginnaawam gi lijjantiwul kenn ndax ay wax moom da koo jik kooku moom sama xarit la salaamaaleykum maa ngi nuyu di ziar waa lu xew tv maa ngi kontaan trop si seen série maîtresse d'un homme marié bu baax a baax a baax bi moom série bu may bégal la dama koy seetaan di ko suivre wéetu ma bi def allah waaye man dama bëgg Marème Marème moom dama ko bëgg ndax lu muy joué neex na rôle lu muy joué taxaw na daal taxawaayu jigéen bu mat xam lan lu muy def xam na lu muy wax macha allah Marème kontaan na si yow. sama idol nga yow ak Jalika Jalika tamit kontaan naa si moom Jalika fi mu teg tànkam foofu la dékonewul de Jalika daa muñ ba bëgg dee daa muñ ba mënatul muñ ndax góor yi tey yii góor góor xam nu jigéen bu baax ak jigéen bu leen di muñal ak ku leen bëgg daa mënatul moo tax waaye xaritam bii moom joor ah joor déconné na joor déconné na joor moom dafa bon moom ndax nit day yar xolam yar boppam nit day yar boppam looloo tax ñu naan nit ku nite ndax moom ba kii nekk xaritam rek jalika rek la waroon seexlu lépp loo xamante ne jalika bëgg na ko war na koo seexlu ak lu mu ko mu mën a doon rek war na koo seexlu de dekone na may wax doomu jalika mu bàyyi si biir kër gi bëgg koo jël def ko wujj di ko toroxal loolu soxor moom fa la mun a yem nit mun ngaa soxor si mag wala si yaay waaye doom xale xale moom moominu yàlla la franchement yàlla du ko faral foofu dafa déconné na ñaari yoon laal la nag moom franchement moom it mu ngi déconné ndax moom sëy bi sëyam la woon bu ci keneen duggee daa war a continuer sëyam sëy sëyam dëgg la nag am na ay droit yu nga xamante ne war na koo kaas si bu kaw ku góor ki bu jàddee yoon waaye fu mu nekk nii sëy sëy sëy wujj la daa war a jël li mu moom jox kee li mu moom biram nag moom day déconné moom biram moom ne na ndax biram moom warul dem fekk lu laal la moom mu koy jéem a sàcc te dina dugal ja kii marem ndax marem moo nekkoon si kër ga foog na ak bon ba te marem lañ koy jiiñ loolu leer na ma ba leer marem lañ koy jiiñ waaye maa ko fi fi may fi fi may finiree maa kontaan si Jalika lu mu def euh, euh, kii wujjam ki nangu sëyam bi ni ko def maa si kontaan bu baax a baax a baax noonu la guerre lay saf mondial si bu ko jaree bu paree mu pare si il faut mu won ko bon exemple bu ëllëgee mu mun a bàyyi doom ji mu dund si jàmm xale la bàyyi ko mu dund si jàmm ak baayam. salaamaaleykum salaamaaleykum ñu fekk si bunte ma ngi di ziar Leewtoo TV maa ngi di ziar bu baax maa ngi di ziar di wax ne carrément seen maîtresse bi ñu seetaan fii neex na trop trop waaye mën a xool si Jalika rek laa bëgg a wax Jalika su fekkente ne carrément xool. xaritam boobu xool dafa jaar dee doomam bi dina gën a am coono parce que maamam bi nekk la moom xool ak état bu baax te kon moom dina am coono doom bi dina am coono. Euh, asalaamaaleykum bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak euh, sama gars yi groupe yi yëpp kenn képp kuy wax sa xalaat yëpp maa ngi leen di nuyu. waaw di wax ci affaire théâtre bi nag bon maa dikkaat rek dikkaat naa ñë jàlloon naa sax waaye damaa ñëwaat bon ci problème mu Jalika euh, warta fajal boppam mer loolu lay bi kii bi da koy aay waaw kenn warta fajal sa bopp mer ci bu dee moom day dem tëddi ko defee béré ki ba waa ji këram tas comme la ma waxoon mu dikk waaw moom bu tëdduwul itam moom yàgg-yàgg da koy wacc moom itam ba tey bu ko bëtam mi ngi ko tegaat ci mi ngi ko tegaat ci rek waaw sama njàngat man ci film bi bëtam ma ngi ko tegaat ci rek waaw koo tamit foofu la foofu lay mujj ci ma ñëw ci rek moom it ak yaay ji bon yaay ji lim ko li muy nëbb doom ji ci mu tëgg koo xam tëgg koo wax xam naa ne comme nii rek la euh, euh, maire bi nekkoon ci ci buumu sëy ah léegi nag dem jotewaat ak keneen ba am ci rek mooy ah, xam naa ni ah loola tax mu ne ko mënuma la ko wax ci tooñ na ko tooñ na baayam waaw baay bi xam nga ne nee na ko li nga ma def du ma la ko baal ba mukk dama yaakaar ne affaire noonu doo mën a demee waaw rek dafa judd feneen foo xam ne fii eh, fi mu juddoo eh, du baay maanaam baayam la nii waaye dafa dafa dafa juddoo feneen ca yaay ji nekk ci biir sëy bi loolu nag laa laa ko laa man foofu la sama xel jëm ok maa ngi toog di leen déglu nag.